Euh, li muy nekk di def mooy jouer la montre comme on di cest dire que xam nañ ne Ousmane Sonko su demee conseil constitutionnel su fa candidature yoon mën nañ ko valider ce qu'il faut mooy jouer la montre jusqu'à ce que parrainage jàll te du ci mën a bokk est-ce que dégg-dégg boobu ngay am ci li con di li cour suprême àtte tey. waaw tout à fait puisque bu nekkee ne dañoo topp euh, rythme bi nga xamante ne ni ci la ñu cour suprême dugal. Mhm. Euh, maanaam. dina dinañu nekk ci Ousmane Sonko war na nekk ci liste waru cee nekk. Mhm. war na ci nekk ba mois d'avril. c'est sûr. Euh, puisque déjà avril benn 2024. ba ah ba 2024 kay avril 2024 puisque euh, Cour suprême. bu dee dafa jël dossier bi mu delloowaat ko tribunal de grande instance. te foofu ñoom tamit ñu mën a jël seen temps. xool heure bu leen neex ñu fixer. Euh, audience datu audience boobu. Mhm. ça pose problème. d' que décision bu fa munti jóge mhm. c' est susceptible. Euh, d' être mhm. mu delluwaat maanaam ca cour suprême. Euh, li xew ni nag man dama jàpp ne xam nga doon naa fi toog ma ne juge du xool làmp yi rek. ne décidé na mhm. dafa am lu ko tënk te li ko tënk bokk na ci code pénal code de procédure pénale mhm. malheureusement nag li ñu gis tey mooy juge boo xamante ne dafa xool làmp yi daal di décider li tax ma wax loolu mooy mhm. le 30 juillet wala le le jeudi 30 août 2018 euh, cour suprême boobu Karim Wade daf ko saisiroon ci ab recours puisque Karim Wade dafa inscrire woon fële ca kowet ñu ne ko euh, euh, euh, comment dire raje nañ la ci liste électorale yi ba Karim Wade demee cour suprême pour ñu delloowaat ko ci liste électorale yi cour suprême dane ko gannaaw kowet nga inscrire boo demee bay saisir ab juridiction juridiction ba nekk foofu la mais du doon bii fa nga inscrire mangook donc euh, euh, quelque temps après. Mhm. li may wax ni 2018 la. oui 2018 ak deux 2023 c'est cinq ans. Mhm. léegi naka la cour suprême boobu mënee ñëwaat Ousmane Sonko euh, ko inscrire à Ziguinchor. di voter à Ziguinchor nekk maire Ziguinchor ñu raje ko ci liste électorale yi mu saisir tribunal Ziguinchor ñu ne ko non non non nekkul tribunal Ziguinchor moo la waroon a àtte mais bu dakaar la. maanaam en cinq ans. Mhm. cour suprême jël na ñaari décision yoo xamante nii dañoo woro contradictoire contradictoire mhm. te eh, yaakaar naa ne euh, l' avocat général bu muy def euh, réquisitoire am. Mhm. daanaka ci loolu la concentré wu. donc li xew nag mooy comme ni nga ko waxee parce que je pense que mot bi ci yow laa ko njëkk a déggee. muy dilatoire. loo xamante ni pouvoir bi dafa nekk di ko def maanaam di fowe xelu sénégalais yi euh, bu nekkee DGE. Mhm. dafa lànk ne du jox Ousmane Sonko ay fiche de parrainage. Mhm. Ousmane Sonko ak ay candidat ak ay avocat am le juge de Ziguinchor. Mhm. kooku jox leen dëgg mu ne dañoo war a delloo Ousmane Sonko ci liste électorale yi. ñoom ñu taxaw ñu ne duñu ko def fii ci plateau. laa toogoon ma ne. Mhm. waa Bennoo Bokk Yaakaar yi dinañu ñëw suba wala gannaaw suba. Mhm. dinaan ñu puisque yéen. yéen a doon wax ne le juge Sabassi Faye jël na décision nañ ko appliqué. Mhm. comme que cour suprême jël na décision. daan nangu leen ñu appliqué ko. mangook maanaam foowe xelu sénégalais yi ci loolu lañu nekk te amul absolument lenn lu consistant loo xamante ni dinañ ko teg ci loxo sénégalais yi pour au moins sax jéem a justifier. une décision boo xamante ne nii am na importance bu toll noonu du leen donc man déjà newoon naa dossier bu jaar cour suprême jaar conseil constitutionnel. wala nga jaar cour d'appel bu Dakar. il quatre-vingts pour cent de change que état bi am dëgg ci yow. foo ko teg fi ma ko teg mooy. Mhm. le juge Ali Siré Ba mi mhm. waxoon naa ci moom avant. ba Déthié Fall en tant que mandataire bu yeewi askan wi waxee ne dafa bëgg a xool procès verbaux yi nga xamante ne ni indi nañu ko ci commission nationale de recensement des vote mhm. parce que Ali Siré Ba avant muy dem cour suprême moo nekkoon président cour d'appel mhm. cour d'appel moo yor en même temps commission de recensement des votes mhm. ba fa Déthié Fall demee texte yi dañoo may Déthié Fall mu am accès ci procès verbaux yooyu xool ndax liñ mhm. doon wax ne fële ca boori fuutakat bureau de vote euh, boo xamante ni cent personnes ñoo fa waroon a voté mhm. soo seetloo trois cent personnes voté nañ fa mhm. mu ne day vérifier loolu yoon jox ko ci droit Ali Siré Ba mii nii doo ko doo ko vérifier non mais il il paraît ah je il paraît parce que am na ku ma ci bind ne ma dans un premier temps Déthié Fall bàyyi nañ ko mu xool mu vérifier mais dans un second euh, temps dafa am leen lu mu bëggoon c'est ce que le juge Ali Siré Ba n'a pas accepté. leneen mooy ci affaire cour wax. leneen lu mu bëggoon mooy lan. Mhm. leneen lu mu bëggoon mooy lan parce que pour man. Mhm. vérifier procès verbaux yi nga xamante ni ñoo jóge ca Fuuta. Mhm. su nekkee ne loi may na la ko. normalement dañ la ko war a permettre. mais bien sûr te jàpp naa ne suñ ko ko permettre woon. Déthié Fall du génnaat dina dafa bëggoon vérifier. procès-verbaux yi. ñu ne ko doo ko def loolu du am ça c'est ce que Déthié Fall a dit moom. loolu la Déthié Fall wax. te mhm. tamit ba mu ko waxee yaa amul kenn koo xamante ne nii. démentir na la mu wax. Mhm. donc bu nekkee ne yow nit dafa am loo xamante ni loi daf ko ko may. Mhm. yow nga xañ ko ko. Hmm? président de la république gis loolu. au lieu que yow ñu ne kat kii quelque part comme que. am na loo xamante ne nii yoon may na ko te moom mu xañ ko ki ko yoon may. Mhm. donc normalement euh, euh, tëddeewul njaaxaanaay bu war a mën a tax ñu bàyyi ko fa mu nekk. mais le président Macky Sall dafa yokk gradam. Mhm. maanaam may ko doole cour d'appel. Mhm. yóbbu ko cour suprême. noonu la def de la même manière euh, Badio Camara mi nekkoon cour suprême. te retraité depuis 2017 mu jël ko yóbbu ko conseil constitutionnel. loolu moo tax ma ne. Mhm. dossier boo xamante nii jaar na ci loxo ñooñu. Mhm. amul opposition nu mu mën a def nu mu mën a def ba am fa. bëgg ci tout à fait. alors euh, Seyni euh, Beye dégg nga bu baax euh, liñ fi wax ci premier tour de table boobu le li ñu war a retenir mooy tey conseil constitutionnel cas cour suprême kase na le verdict bi nga xam ne moom la saa ba si fay joxe woon mais dañu war a rejuger ñu bari nee nañ le pouvoir leen rek li ci wut mooy gagner du temps. da ngeen da ngeen bëgg gagner du temps. moom ñoom mooy li ñu wax. Mhm. ñun le pouvoir. Mhm. déjà c'est quel pouvoir c'est l'État. le pouvoir politique. le pouvoir politique. Mhm. ñun ñun du ñun ñoo juger Ousmane Sonko. c'est le pouvoir judiciaire qui juge les dossiers. on peut faire tous les commentaires qu'on veut on peut penser ku nekk xalaat ni oui yéen lii ngeen si jublu yéen le ngeen si jublu chaque jour ñu dégg. ay opposants yu ñuy wax ni lii ngeen si bëgg. Mm-hmm. Euh, élection yi te ngeen